la justice du moins est dans un coma profond mortel fippu leen ndax farata la kenn du ko wax kenn te wax nañ leen tamit du ñu toog bañu ñu waa ji di yóbbu ñuy jóg dañuy perte bés bu ñu taxawee fii di wax jouru procès bu kenn toog bu mu am benn minute jàmm bu mu am benn seconde noppaliku bu mu am benn stop bu mu am benn arrêt du ñu déglooti rajo du ñu seetaanati télé du ñu bàyyi xel journal dinañ ko ci teg tambour battant H24 non stop H24 non stop di ko ci teg. lundi mardi mercredi jeudi contre vents et marées yóbbaale idéologie Mali doo ñu gën yóbbaale idéologie que Burkina doo ñu gën yóbbaale idéologie buy wane ni yéen Algérie doo la ñu gën ban lañ leen defaree ban la ñu defaree Égypte doo la ñu gën Tunisie doo la ñu gën Sri Lanka doo la ñu gën France doole ñu gën di ko ci teg di ko ci teg di ko ci teg tant que ñoom teguñu ko ci daw duñ leen bàyyi envahir mbedd yi amul école amul luy dox lépp lañuy ñuy liggéey bi duñ bàyyi kenn kuy liggéey oto yi liggéey bi lépp la ñuy paralyser lépp lépp sëf tali ba mu fees dell sëf tali ba mu fees tepp génn élèves yi lépp def fi lu musul am lu musul am ci histoire ci suñu dëkk ndax Mali def nañ ko ñoom ba pare Algérie def nañ ko ba pare ñoom romb nañ état bi yooyu Côte d'Ivoire def nañ ko ba pare Égypte def nañ ko ba pare Tunisie def nañ ko ba pare printemps arabe ba ñun ñëpp def nañ ko Libye def nañ ko ba pare donc ñun ñoo ci des Guinée def nañ ko fi ba pare ñun ñoo ci des Afrique yëpp ñu ngi ñuy xool Burkina def nañ ko ba pare donc ñun jaaxaluñ ñooñu xanaa ñu def lu raw ñoom lu ñu def rek ñu mun ñoo jox lenge di lenge door yi donc na ñëpp taxaw na ñëpp prêt ñu jàpp ni lii nii xeex boo xam ne la au delà de jëlee fi Macky sàll wala ne du ñu forcer ku ñuy doon président fii wala di sostis gii di ñu jaay doole dinañ def loo xam ni musu fee am waaye dinañ def loo xam ni dinañ aussi jël suñu revanche ci wane ni Afrique sénégalais musul ñàkk fayda sénégalais musul doon ragal sénégalais musul ragal dee sénégalais du des ginnaaw sénégalais du tapet yéen maliens yi foo taxaw ne ñun ñu ne leen ñunit ñuy ah, printemps arabe bi fu taxaw Tunisie ak ñoom ñëpp fu ñu nee ñun ñu ne leen ñuwit ñunit fu Burkina taxawee ne la Burkina be ne la ñun ñu ne leen ñuwit ñunit ñunit ñunit donc na ñëpp taxaw ñu wàññi wax ji te jëf def fi lu musul am barke alxuraan c'est le le moment où jamais où jamais amul arrière amul bàyyi benn fan def a noppaliku amul dara amul lépp la ñuy paralyser dara du daw dara du dox dara du yëngu pilot ko teg ko sur bi ci tempo bi te bu leen fàtte ba ci armée bi ñi ngi ne tekk toog du ñu seeni noon de déedéet ñoom armée bi nee nañ am na foo leen di toll di ngeen leen gis ñoom dafa am fu ñu taxaw di xaar mais nee nañ ma neel jàmbaar yi ndax ñun ñëpp ay jàmbaar lañ loolu lañ ma wax am am na fu ñu leen di xaar pour ñoom ñu indi relais bi jox ñu ko dinañ ko continuer ñoom loolu lañ ma wax pour ma wax leen ko pare leen ko ñoom nee nañ dinañ leen du ñu ñëw nag jël si leen mais nee na ngeen góorgóorlu ba fekke leen parce que relais la quatre cent mètres fexe leen ba fekk si leen nee nañ ñoom maanaam liggéey leen ba ñoom fu ñu taxaw di leen xaar boo leen leen joxee lenge yi ñoom dinañ ko yeggali ba mu set wecc ñoom ñi ngi ne tekk di déglu ñu ngi ñuy xaar nag policiers yi yéeg du ñëpp nangu ne dañuy rayante ak ñun de gendarme yi déedéet ndax ñoom di dañoo am ay kër ah policier boo fi gis am nga sa sa kër baay ak sa kër yaaya ah. waa am nga sa kër baay am nga sa kër yaay ñi nga xam ne ñoom ñooy nervi yi am nañ kër baay am nañ kër yaay barki démb Macky Sall jour samedi Macky Sall recevoir na nervi chef nervi kan ma chef nervi Biram Fay tuxkatu yàmbaa bi Biram Fay tuxkatu yàmbaa bi mooy nervi bi Macky Sall ñoom recevoir Biram Fay moo leen jiite donc nervi yi lañ doon préparé waxuñu nag pour ay ragal nee naa leen am na luñ dugal pale loo xam ne pour nervi yi la Biram Fay lañu woo ñoom ñu ngi yi yéen tam foog ñu préparé leen waxuñu ku fi ragal na nga daw ku ñemee na nga taxaw peuple baa ngi jóg. dal seen kaw ku ñime na nga taxaw forcé wuñ kenn ku ragal na nga daw waaye ñoom lañu déchargé woon ca pale ba ma waxoon leen ni pour nervi la moo tax Macky Sall woo samedi boobu biram ci guddi nuitamment biram fay dem fa biram fay dem ba mu demee toxkatu yàmbaa ga tekkatu ataaya ba buntu kër ñoom Macky Sall buntu kër ñoom maanaam fay waajooju ci boppam moom moo dem wuyu Nutama moo dem wuy ji donc ñu ngi leen ñu ngi koy préparer moom tamit du ñu bàyyi policier bu ñuy songu du ñu bàyyi benn gendarme mu ñuy rey du ñu bàyyi benn homme de tenue mu ñuy sànq du ñu seetaan benn nervi di ñu rey la woon wëndi na toog di seetaan ay nervi ñu yor ay yat yor ay kaat kaat di dox nu mu leen neexee Farba di leen fay Biram Fay di leen fay Alimaane di leen fay te ñu xam ne Alimaane moo fay nervi yi te Alimaane am kër am kër papa am kër yaay am këram ñu koy seetaan loolu ñun sañu ndeyee baaxul di képp ku fi rengagé nervi am ngay kër am nga këru papa am nga këru yaay buñ ci bàyyi kenn ku ñu rey nañ ko rey ku ñu rey nañ ko ray wala ñu ray lu ko jege à comme à la guerre bu ñu ñàkk fayda bu ñu ñàkk fulla nañ ñuy def nañ leen koy def bu ñu wàccee kenn ci suñu famille ñu dem wàcce kenn ci seen famille mu doon ñaari dëj rek bu ñu dëjalee moom ñoom ñu dëjal mais duñu duñu du ñu dëjal ba pare ñoom du ñu dëjal loolu daf fi bu ñu wàccee bu ñu demee am dëj suñu kër ñoom nañ leen defal dëj seen kër voilà bu ñu reyee fii rek ñu reyal leen fële ñu rey fii ñu reyal leen fële moo tax waa ji ne leen guerre civile mi ngi xeeñ ger civile mi ngi xeeñ parce que léegi coup pour coup œil pour œil dent pour dent la gatsa gatsa kenn du ma rey may seetaan kenn du rey sama dañuy revanche dañuy fayu dañuy fayu buñ ñu reyee nañ dem reyal leen bu ñu taalalee nañ leen taalalal luñ ñu def nañu fay nañ am fulla ci suñu bopp ak fayda ci suñu bopp bu ñu ñàkk fayda di rey di dem di suuli sañuy moor loolu dafa jeex dafa jeex tàkk ça suffit nañ jóg ci suñu nañ farlu ci suñu bopp lañu def nañ ko lañ leen ko delloo loolu mooy gatsa gatsa coup pour coup œil pour œil dent pour dent loi du talion boo mënul jàpp nervi dem ci famille am songu ji faut que ça soit clair les stratégie waxaguma ko les numéros génneeguma loolu yëpp lu bu lu jot yomb voilà nañ ko bëggee rek a ah, dégg naa Alintine ñu papa Alintine wax loolu ñu dof lu naan ay na waru wax loolu ku nekk am nga droit la nga gis ni lii lii xeeñ nga ne lii mi ngi xeeñ Sénégal ku waxul ku attewul di nga ku artuwul di nga atte mu ngi xeeñ génocide mi ngi xeeñ Sénégal crime contre l'humanité mi ngi xeeñ Sénégal guerre civile mi ngi xeeñ Sénégal luy xeeñ mi ngi xeeñ mi ngi xeeñ loolu képp ku am nokki flair te doo seytaane xam nga ni lii mi ngi xeeñ Sénégal parce que dañuy fayu à la lettre di leen ko delloo à la lettre nga ñu koy def ñu la koy def boo ñu ñoppatee fu metti dañ koy delloo fu metti point donc voilà maintenant ña ngay wax parce que ñoom yaakaar naa ni amul nëbbu wax nañ leen ko waxati leen ko ñoom Sonko jàpp ko tëj ci kaso la ñuy waajal parce que kaay wuy si te Sonko nee na leen du ma wuy si te bu mu leen di wax du ma wuy si waxoon naa leen ni Sonko bu mu wuy ji chaque jour rek damay jiitu sama peuple waaye kuy waxee it ne Sonko man senegal waxuma la mag Sonko sax Macky Sall sax dafa may déglu waxuma laa Sonko amul ku ma dul déglu ku ma ci wax da ngay def li ma wax ba may ñëw naa leen Sonko ba mu wuy ji boobu Sonko waxagu leen du wuy ji déglu na bu baax li ma ko wax doful jinne jàpp ko ba mu ñëwee samedi bi la leen wax du wuyu ji waxoon naa ko bu yàgg parce que plan bi yëpp tegal naa ko ko depuis ba ñu dajalooyee fële nga xam ni mooy Sweet Beauté ñoom Baye Fall Rijaal gaa yi fa toog lépp waxal naa leen lépp boobu moom jotagul ci dara ba wax ko ba wax ko blouson bu mu soloon donc ku la wax loolu bu ñëwaatee topp topp topp topp ba ne la bul wuy ji def na li ma ko wax tamit nee na du ma wuy ji te ñee nee nañ ko di nga wuyu ji parce que ñoom ñoo moom justice au lieu ñu bàyyi justice waxal boppam duñ ko def ñoom ñoo ñëw ko di nga wuyu ji comme nee na moom dina wuyu ji ok nee na du wuyu ji ñoom ñu ne ko di nga wuyu ji di nga ñu wuyu ji par force di nga sañu papa Macky Sall par force donc ñun dañuy taxaw jaay suñu bakkan mu jaral lu ne nañ jàpp ni c'est pour sauver une nation c'est pour def fii lu musul am. donc bu ñu déglu kenn wéy bu leen génne ay boo leen génnee ay nangam yooyu yëpp ñoo ñëpp ay dóorkat lañ gis nga bu ñuy galère ñooñu ñëwuñu ah du ñu ñooy toog ba ñu toll ci waaj a dee ñu lay jëm a gëm loo boo génnee boo dee ay perte day fen moom moomu mooy perte billahi boo génnee moom mooy perte day fen de boo génnee moom yow pertoo de moom mooy perte parce que moo mooy lekk loo lekkut mooy naan loo naanut moom mooy bénéficier wu donc moom moo lay gëmloo boo génnee day fen moom boo génnee moom mooy perte day perte privilège privilège yëpp day perte lu mu doon lekk day perte lu mu doon naan lépp lay perte boo génn muy perte donc bu ñëwee di la gëmloo ni boo génnee buñ la reyee day fen boo génnee mu perte boo génnee mu daw voilà xam lan la lay wax sàcc la boo xam ne nee na la bul yeewu bul yeewu guddi gi jeexagul bul yeewu fekk mi ngi lay roñ mi ngi roñ sa waa kër mu nga sàcc la fa ne boo yeewoo mu bàyyi sàcc donc boo boo génnee lu mu lay gëmloo day fen boo génnee mu daw sàcc la boo génnee mu bàyyi lam sa sa lam doon sàcc ci yow donc da ngay génn génnal taxawal ab naa fekk la profitaar la day dund ci sa nalaw ci say nalaw du yàkkamti nga yeewoo kon il faut que ça soit très clair ñu jóg taxaw ci bañ a faale kenn bañ a déglu kenn kuy xeex du déglu ay leçon de morale kuy xeex militaire du dem au front ñu naan ko boo fa dee da ngay perte wala nangam nang yooyu yëpp ay waxu naxa sa xandang la ay kesew kesew la ay intérêt moo nekk en jeu bu sañoon ndoo yeewu ma ngay sàcc la sa alal bu sañoon doo yeewu boo yeewoo rek sàcc bi jeex boo yeewoo rek mu daw donc li ñuy bëgg a njëkk a def mooy sostis boobu ñoom fexe nañ ba pour Ousmane Sonko dem wuy ji la deux Mame Mbaye te Mame Mbaye Niang la mu sosal ci àdduna Ousmane Sonko xoolal weñ bu ci tag dee toog na ba ne moom Ousmane Sonko c'est pas la première fois ne Ousmane Sonko njëkk nañ ko jàpp ci viol ñu ne ko fan la mu ne almadi mu diffamé moom Ousmane Sonko sosal ko jiñ ko viol moom sàcc lañ ko jin de mais moom viol la jiñ Ousmane Sonko ñu ne ko fan la mune ne almadi foofu la njëkk a violé loolu justice jàpp ci waa ji de léegi waa ji ko yow da nga sàcc mu yóbbu si si sostis ne waa yow Ousmane kaay wuy si man bu ma doon Ousmane Sonko foofu sax du ma fa dem <laughs> billaay wallaay man xawma kan mooy fekkee incha allah sama opposition ci pouvoir am mais pouvoir am du sedd de xam naa dina ma tëj milan parce que xawma kan laa nar a opposé bés ma duggee ci politique xawma kan laa fay fekk mais du am jàmm de illaahi di je serai l'opposant le plus farouche de l'histoire du Sénégal man Ablaye Wade sax maa koy gën a tàng damay dugg di génn di taal di boyal di lakk fu may wootee mooy tak na tàkk na tàkk na tàkk na tàng na boy kese ay pyromane rek laay àndal na tàkk na boy du ma may waa ji tarfatal ay ni du ma ko may dara bu doon man la waa ji lu ma feneen lépp ak li ma fi port plainte yépp lépp sans suite la man ñu woo ma le te waa ji ñi ma woowal le deux moom daf maa fenal moom ne man dama viole almadi musuma dugal plainte ba ngeen woo waa ji musuma dugal plainte ba ngeen woo ma woo waa ji plainte yu ma def yëpp sans suite ngeen ko def waa ji feneen ma fen yu tooy jiñ ma viol ma jiñ ko sàcc te sàccam ñëpp gis ko ma jiñ ko viol moom moom moom wuyu moom mu jiñ ma viol moom wuyu moom mu jiñ ma sàcc yéen ngeen woo ma demuma barke alxuraan demuma te bañ ma jaayee deew la yóbbu fa na ma waxal du ma wax juge bi dina wax ba faatu ma mel ni muuma dernier mot bu ma koy wax mooy defal li nga bëgg def point man amul may wax yow defal li nga bëgg a def only God can judge me yàlla rek moo mun a juger yow doo dara lu Tupac waxoon waa ji doo tus ne juge bi doo tus doo nix only God can judge me man ku dul yàlla mënuma juger il faut ñu am maanaam euh, capacité yooyu yu Tupac yore woon taxaw ak juge bi ne ko doo dara doo nix only God can judge me yow mënoo ma juger fenkat nga waxoo dëgg loolu moo tax Tupac marqué histoire am mais bañ bañkat yi dañuy marqué histoire ku dul bañ doo marqué histoire ku dul bañ doo marqué histoire da ngay bañ Tupac dem ba Amérique nekk Amérique di taxaw di di défier seen justice naan only God can judge me booy kaana yi ba léegi ñu ngi koy def dañuy jàpp booy kaana mën a ko mën a teg ko teg ko ak juge mu saaga ko ndey saaga nday moom ñooñu du ñu ragal ku lay atte noonu kooku nit la ni yow dama dul wuyu ji ne la defal loo mun wuyu ji wuma defal loo mun il faut que ça soit clair Mame Mbaye Niang ak li mu fi fenelaate yépp mais ak lu fi Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko mais lu est-ce que xam ngeen des fois dañuy wax na ah, Ousmane Sonko lu tax du porter plainte mais Ousmane Sonko mus na fee porter plainte ba ba dem justice ak waaja Ousmane pétrole mu porter plainte ñu xotti gaz mu porter plainte ñu xotti zircon xotti porter na fa plainte ñu xotti 94 milliards porter na fa plainte ñu xotti mu porter plainte euh, lu lu mu tuddati Adji Sarr ak ñoom Mamour Diallo ñu xotti mu porter plainte ñoom euh, lu mu tuddati ay min ñu xotti mais mais kooku kooku kooku luy lan lay fi porté ci plainte dematuma mooy rek moo fi ne dematuma demuma comme si si amu fi xoolal man du ma fi nekk ku ngeen di jugé te saa yu ma porté plainte ngeen xotti ko man xanaa man sama nday baaxul yéen dee benn la proof of life kenn du dee ñaari yoon du ma nangu déposé naa quarante plainte ak accepté woo ko te man ku ma porté plainte rek ngeen a ma kaay wuy wuy jiwuma maa ngi sama kër toog ay boobaa loolu la ñuy seet man la waaw set la da nga may laal dëkk bi yëpp taxaw voilà ñu anticiper affaire yi mu jeex takk jaxase ko mu jeex tàkk carte gi jaxasoo point saa yu ma plainte yow doo jël waa ku plainte ma war a wuy ji maa bañ maa lànk du ko def ñàquma fayda tant que tollale woo droit yi man du ma nangu nga may def l'agneau di sacrifice c'est tout te ñëpp xam ni Mame Mbaye Niang corps de contrôle bi da ko jàpp IG IGF bi bi nga xam ne Amadou Ba moom moo ko yónnee woon Prodac mu sàcc fa vingt neuf milliards loolu nga xam ne xaj yi dañ koy mbow muusi di ko ŋeew kinaari di ko sab gole di ci yéegee garab ñu bugg ñu taxawal naan ay kaay wuy bu fa demee wuy dañu ko dóori sursis de boo defu ndànk dana fa génnee trois mois sursis de justice boobu du fa dugg di génnee noon de justice boobu duñu nangu mukk mam mu gañe Mame Mbaye Niang bu fa demee perte de te trois mois sursis bu ko amee du dem ci élection yi maa la ko wax dem leen laaj justice trois mois sursis bu ko fa amee du dem ci élection yi te du fa génnee noonu de mooy premier coup buñ ko nar a bu Mame Mbaye Niang bii rek mun na tax Ousmane Sonko du dem élection ñu ñu saat sarale bu bu aji saar bi bu Mame Mbaye Niang bi bu sottee soxlawul bu aji saar déggu leen ma de bu ñuy xeeb moo mun a taal dëkk bi parce que bu Mame Mbaye Niang bii buñ ko ci dóoree trois mois sursis du dem ci élection yi kon il faut que ça soit clair wallaay bu demee <laughs> duñ ko bàyyi noon de duñ ko musa wax ne yaa gagné Mame Mbaye Niang dina fa jëlee sursis te bu fa jëlee sursis trois mois sursis bu delloo këram mooy jeex na de mooy jeex na de day toppante ba ba faatu ba élection yi du laal te bu boobaa buñ ko fa dóoree condamné ko fa <laughs> c'est fini ah c'est fini pour lui ah c'est fini pour lui bu fay dem di perte mooy premier coup buñ ko bëgg a dóor trois mois sursis lañ koy dóor foofu bu fa demee dina fa génnee trois mois sursis te bu ko fa defee du dem ci élection yi minimum dinañ ko ko dóor te loolu leer na naññ ñëpp xam nañ ni Amadou Ba moo fa yónni corps de contrôle am amul problème ay IGE IGF IGR surtout ay nit ñoo fa dem on s'en fout des noms Amadou ak Mamadou yem Amadou ak Mamadou ak Mouhamadou benn lañ ak Mor yëpp benn la bu ñu kenn fontoo IGE IGF IGD wala IGA wala IG warga dërëm on s'en fout des noms c'est des sénégalais ay corps de contrôle ñoo dem jàpp ko Amadou Ba bu mu nekkee ministre des finance moo fa yónnee corps de contrôle xaalis bu ñu defoon pour les jeunes Mame Mbaye sàcc ko vingt neuf milliards jënd ci ay terrain jënd ci ay immeuble tabax ko ak këru jàmbur yi jënd ba jënd ci pharmacie bu nekk ci suuf mu jënd immeuble ba pharmacie boobu noonu ñoom bañ mu naxante ak ñoom ba jëlee leen fa jënd pharmacie ba ay immeuble immeuble yi nekk biir ville on s'en noo corps de contrôle la bu la ñu fontoo tudduma Amadou Mamadou laa tudd gas sara marak Amadoog Mamadoog Muhammadoog Moor ak Maamur ak yëpp benn lañ bu la ñu fontoo il faut que ça soit clair si c'est neuf sàmbaay donc bu duggee foofu ci sos tiis caaxaane wala sàmmu leen ko ba mu dugg justice ñu si atte ko ci code pénal dina fa génn ak nu mu néew néew benn trois mois sursis mooy pare na ci élection yi donc nañ ko anticiper nañ ko anticiper voilà foofu kenn dugg fa kuy xeex Macky Sall génn ci wax leen ma bañ fa yóbbee nit dof dañ koo inculper dóor ci kaso yi te lu gën a metti lañ def nit dof dañ ko torturer sept jours ci gris une semaine ñu bàyyi la ci gris ay karo nit dof sept jours est que xam ngeen ni gris yi boo fa nekkee Sénégal da nga yàkkamte ñu defeera la nga dem tëddi booy day craqué ci gris yi craqué xam ngeen craqué non xamu leen gris imagine si li mooy giri buñ lay génnee dañ lay mënote giri buñ lay génnee dañ lay dóor mënot yow gor dugal la ci biir yóbbu la indiwaat la ñu ne bi newu fa ñu indiwaat la nga toog giri set dama bëgg ngeen xalaat tuuti pour ñu xamul nit dof tey bu demee te coow dina nalaw dina nalaw sept jours bu leen ko sax seeti fii ak sept dina nelaw sept jour ak ka metti violon amul matelas amul sijaada amul lal amul dara dangay toog nii ci miir bi miir bu salte sax miir boo xam ne dañ koo bind bind bind bind miir bi ñuul ñuul ñuul ba peinture bi miir bi peinture bu jaune la am mais dama ngeen xool giri giri giri police centrale dañ ko bind bind bind bind booy feutre yi fii ñii bind ay miir bu salte salté comme miiru waañ waañu Sénégal yi comme miiro waañ yi dafa mel ni mun ngaa xoos affaire bi ndax ñuul ñuul lu mu ñuulee nga wéeru ci miir bi lëndi lëndi nit daf wéeru ci miir bi nalaw nii munoo tëdd ci karo toog ci karo wéeru ci miir mardi ñu def ko nit dof mercredi ñu def ko nit dof jeudi ñu def ko nit dof vendredi ñu def ko nit dof samedi ñu def ko nit dof dimanche ñu def ko ba tey lañ koy doog a defeere donc lundi ba dimanche nit dof tëddul ci lal lundi ba dimanche nit dof da ko toog wéeru ko ci miir lundi ba dimanche xeetu torture boobu musul am loolu torture weesuwu ko dañ ko toro xalaat toro torture ko xeetu torture boo xam ni mur karo gris une semaine la ko Macky def ndax en bu amoon ci moom une semaine barke alxuraan une semaine Macky dafa torturer ni dof une semaine de souffrance mentale psychologique nalawul tëddul ci lal wéeru ci miir giri bu ndaw fees dell muy nalaw ci nii toog nii nii la nalawee nit dof nii war ke alxuraan nii nii kan mooy nalawee noonu donc nit dof nalawul une semaine tëddul ci lal une semaine karo mur gris caro mur gris caro ndeysaan nga gis booy tëdd nii booy booy tëdd doo mun a sax nalaw psychologiquement une semaine la Macky Sall torturé nit dof nga gis booy booy ñi indi nii booy marché yeeg booy tafukat yeeg sàcckat yeeg booy agresseurs yi nga tilim xaj ñu boole la ak ñoom booy ñuy tëdd fii ñi ñiy saw ay benn pot buñ teg foofu la ñuy saw benn pot ab pot la teg booy di saw car car di saw tëddaat ay booy tafu ak ay booy agressé ak ay booy yu tilim yoo xam ni coo nga toog nii di mi doo mun a nelaw di xool booy yu tëdd booy yu tëdd nii ci karo yi yow nga ngay xool ndeysaan da ngay benn moment ngay nelaw ay seconde nii ci miir seconde defaat nii yow gisaat booy yu tëdd éparpillé wu kii di xarang fële booy yu sonn imagine benn booy bu doon tafu marché benn mille francs ñu dóor ko ba mu tàppandaar yaram bi tas booy bi bu ñëwee bu ñu ubbi giri bi dañ koy sànni rek booy bi xalangu boo yuy xaran xaran yuy génn ci mbedd yi ndax dóoruñu leen dóor nga toog nii billahi booy mel ni ñu ñu rey di tafu ci mbedd mi booy dañ leen ñàkkuloo ba amuñu lu ñu lekk booy di tafu booy di agressé gars yi dóor leen noonu la ñuy ñëwee seen deret seen bopp yu toj ñu taf tafel ko benn ay def benn sparadrap taf ko xoola booy ñëw seen bopp yu toj ñii ñëw ay kanam yu xotteeku ñii ñëw booy dañ leen di sànni ci giri dañu ubbi giri bi sànni leen rek mais booy commencé yenn booy di takkoon di saaga ay nday waaye caa caa kenn tëdd fële booy njaax mu fees dal giri bi fees tepp ku ñëw dinañ la fa dugal ku ñëw yow ngay ku baax sàccoo fenoo ñu jaxasal ak ay agresseur ay sàcc ay tafukat ay ay njublankat ay ñu jaxasal la booy ñaq jom ñëw tëdd fu leen neex njaax ñii di xaran ñii di yooyu nga toog nii ko di demande man lan laa def ñu téele ci une semaine nga gis gis nit daf gis na xeetu nu mu dee dee dee xeetu trente gang lënd bu mu ñëwee ñu dugal ko am na ñu ñu fa jëlee lënd yóbbu rek am na ñu mu nekkal tuuti ñoo ñu dem mu toog xaar mardi mu xaar ñu indi indilaat ko yeneen nit mu nekkaat ak ñoom booy nekk fa di def di n'importe mu nekkaat ak ñoom muñ ñu jël booy mercredi jeudi ñu yóbbu booy ñu indilaat ko jeudi boobu ñu indilaat ko ñeneen ñu bees mu nekkaat ak ñoom vendredi samedi dimanche vendredi bi am ñu jël génne mu nekkaat ak ñeneen wala même bu ñu leen génn ñu indilaat ko ñeneen vendredi chaque jour ñu am ñu ko génneel indil ko ñeneen mu toog nii mel ni ku def ci ku deful dara. ci ko juddoo fu baax ku koo xam ni Macky Sall gënu ko ndey gënu ko bàyyi te bu ñuy set ci ngor nit dof moo ëpp ngor Macky Sall ndax musul sàcc dërëmu senegal te Macky Sall sàcc la xool loolu Macky Sall sàcc la moo tëj ku sàcc ku musul sàcc Macky Sall dafa jaar ci yoon bu gën a yomb politique kee da ko rayante di représenter senegal ku sàcc bi moo jàpp ku dul sàcc dóor ko ci kaso bi toroxal ko une semaine de torture sept jours de torture ci gris ci violon bi gars yi duñu nit en totale violation de la loi duñu nit totale violation une semaine nga téye nit ay de parquet ay retour kaay ma toroxal la ba nga ne tot en rancune aay dooy dëkk bi <laughs> en tout cas daal li ma leen di wax mooy gars yi chaque jour loolu laay ñaan tamit képp ku nga xam ne activist nga walla yaa ngi wax ñi lay déglu ñuy dox ci dëgg di wax dëgg kese moo am solo ñu bañ a bàyyi calculer nit yi man xeex injustice moom ma tax a jóg man damay xeex injustice nee naa leen bokkuma ci benn parti politique nit bu ma féetalee ci parti politique mooy yaa ngi nax sa bopp ndax suba mun naa xëy rek attaquer parti politique boobu mais à part les dégâts man duma ma attaquer xam ni joxuma ko sama alal joxuma ko sama kees am na ay neutre wala ñu naafeq ñuy ñëw ci man di ma wax yu mel noonu waaw Mollah yow lu tax doo wax Ousmane Sonko man Ousmane Sonko dama ko dénk sama alal bay wax ci moom Mollah du doxe noonu Mollah du doomu aadama buy wax ci nit nii déedéet Mollah c'est un bu ñu sàcc alalam di ko foowee di ko mandee di ci mandee di ci tëddee ay caga di ci taxawaalu di ci jënd seeni oto di ci doubler seen i compte bancaire di ko feesal moo laa ñooñu lay xeex Ousmane Sonko bu moo ko waxee dara dama ko tooñ joxuma ko sama alal dénkuma ko sama kees defuma ko ministre di ko wax dara déedéet man moo laa du ma doxee noonu kenn munuma wax attaqué Ousmane Sonko ma attaqué Ousmane Sonko parce que sa man kenn mënuma changer ci ni may fasal faralee di xeex je suis un opposant buy xeex képp ku sàcc suñu alal képp ku ñu dénk kees ma koy saytu képp ku yor suñu alal dama lay saytu képp ku ko yorul sama yoon nekkul ci yow kon Ousmane Sonko mënuma ko wax dara te toppewuma ko dara ndax dénkuma ko dara donc kenn mënul fexe ba ma wax ci Ousmane Sonko loolu mooy sama principe mooy samay concept képp ku ma dénk sama alal dinaa la saytu dinaa la topp dinaa xarek yow dinaa la lijjanti te bu ma gisee ni sàcc nga dinaa la limbaar Ousmane ko nag joxuma ko sama fukki dërëm joxuma ko sama kees gérewul sama dara gérewul samay ressource kon donc mënuma ko waxal dara dara mënuma ko waxal donc moom mun na def lu ko neex duma wax ci moom mun na def Ousmane dafa lu la neex tant que sama alal yoroo ko duma wax ci yow te nag boo ku subir injustice ku mën a doon dinaa taxaw xeexal la je serai à tes côtés bés bu ko Macky Sall sibiré dina ma gis ci wetam ma ngay soutenir bés bu ko benn nitam sibiré dina ma gis ci wetam ma ngay soutenir déggu leen de maa ngi leen di wax loolu rek ngeen dégg waa dama ne bés bu ma gisee kenn ku teg Macky Sall ay fen wala ay sos wala di ko bëgg a sibirloo injustice comme ni mu amoon en mille 2012 damaa jóg nekk ci wetam Macky Sall mos naa ko jàppale parce que <laughs> en 2012 bu muy subir injustice damaa déplacé wu jóge ba Espagne xeex ndax moom ba mu jëlee itam nguur gi di sibirloo ñeneen injustice ma déplacé wu wala ma taxaw di xeex di ko xeex moom kon donc ñaar yi laay dox képp ku sàcc sañu alal dinaa la xeex képp koo xam ni yaa ngi subir injustice dinaa la xeexal lii mooy samay concept lii mooy sama philosophie suba mun naa ñëw taxaw jaayante sama bakkan ngir Mimi Touré ndax dafa subir injustice ba Mimi Touré di subir loo nit ay injustice damaa xeex Mimi Touré lu ma ko waxalul amul te sama yaay la Mimi Touré xam naa ko de sama yaay la te xam na ma dañuy sax déggante pour muy clair waaye ba ma ko waree waxal dama taxaw xeex ko ba mu xam ni xeex naa ko ba mu jamono jooju duñ wax du ma sax jege dama ko xeex jusqu'à sama dernier coup de sang bu mu sibiree injustice damay taxaw di ko xeexal képp ku subir injustice ak camp boo mun a doon jàppal ne di nga am allié Mollah Morgun dina taxaw doon sa allié ak loo mun a def nag mais injustice boobu ñu la teg moom dinaa la xeexal moom je serai à tes côtés dinaa la xeexal ni ma ko munee ba fu mu yem mais boo ko subir la waatee nit tamit dina ànd ak kooku ñu xeex la yow noonu laa mus doxee mooy sama démarche donc Ousmane Sonko amul benn compte bu ma war a rendre ndax joxuma ko sama alal joxuma ko sama kees joxuma ko sama réew jiiteeku ko yoru ci dara donc am lu ma ko wax dama ko tooñ lu ma ko wax dama ko tooñ sama tontin sax yoru ko donc duma ko waxal dara te kenn mënul fexe ba ma waxal Ousmane Sonko dara ndax kenn mënul fexe ba may sosalaate góor dafa am benn jotaay ba moo sa toog benn waay di wax quoi ay gel ba ba ba balaa dee naan ñoo gel yi léegi ñoom kenn vierge ci nangam nangam ma taxaw ne man de samay cousine ñoom mun naa leen waatal ma taxaw de mun naa leen waatal ne dañoo vierge parce que duñ génn ci kër gi duñ def lii nangam benn grand bu toog bu kuul bu nekk ci biir jotaay bi inaar yen rien voir nag muy dégg lu ñuy wax man dafa naan billahi man samay cousine mën naa leen waatal ci barke Seydina Mohamed non seen papa dafa féroce xoolal ñooyu booy yooyu duñ génn gàlle duñu lii di waat di to grand bi ne ma maay booy ma ne ko maay hmm, bul mus a def loolu ma ne ko hmm? mu ne non bul mus a def loolu grand bon dama ko rusoon quoi day ñëw ci jotaay bi toog mais moo ñu mag quoi du wax sax du dugg suñu waxtaan day toog day dé na ma bul musa def loolu bul musa waatal jigéen bul musa waatal góor xool ko ci sa bopp rek bul musa waatal ni jigéen bii dafa vierge bul musa waatal góor bi ni moom kii bëggul jigéen wala du bu bu bu amee possibilité tëddee jigéen bi du ko tëddee bu ko musa waat bu la ko kenn jaral mu ne woy dëgg la kay mais gis nga loolu dama ñibbi sama kër xalaat xalaat xalaat mais ma ne mais wan mais ma mais grand bi wax na dëgg maa ngi bëgg a waatal koo xam ne man topp ma ko xaw ma lu nekk ci suufu sërëm xaw ma fu muy dem xaw ma fu muy fréquenté xaw ma fu man man maa dëgër fit damaa toog ba ma ne man maa dëgër fit muy bëgg a sama cousine xaw ma ci lu lu ñu ne a dugg fenn rek ñu ne ma ki ki kenn ma man sa cousine bi xam naa ko wala ñam naa ko wala sama booy la woon yóbbu naa ko fi wala yóbbu naa ko faa lu may def mu ne ah d'accord wax na dëgg nag donc amul góor boo xam ni dinaa la waatal ne laaloo kii wala laaloo kee amul jigéen bu may waatal ne musoo laal du ko def wala musuñu la laal du ma ko def du ma ko waatal kenn mais maa dégg ci audio Adji Sarr ne du ma waatal Ousmane Sonko de nan ay Ousmane Sonko est-ce que def na lii wala def na laa non du ma ko waatal du ko waatal moom du ko musa waatal nee dem nafa fa ko musa waatal am na ngor bu wax dem na fa du ma ko waatal mukk ne laal na wala laalut waaye maa dégg ci kiñ naan dafa dañ ko laal mu ne euh, moom aji Sarr moo ci ojo ci waxtaan ak MC Niass ne Ousmane Sonko laalu ko moo ko wax de du man de moo ne moom Adji saar yoon na ndar paynam xam na ku ko futti ak ku ko fa dugal moo wax ci audio bi ne moom Ousmane Sonko duma ko waatale mais moom damay mën naa jël li Adji saar wax ma ma atte ko moom duma ko waatal mukk parce que góor la góor la de moo xam fu muy yëgee ak ni muy yëgee ak fan la koy yëgee ak fu ñu ko teg loxo wala fuy fuy metti moo ko xam du mu ko waatal waaye am naa droit déglu ki ñuy ñam ak ndarpaynam mu taxaw ne Ousmane Sonko laalu ko parce que l'aveu est la mère des preuves moom Adji Sarr moo ne ndarpaynam bi mu yoroo ci suufu xarantey tànkam usman Sonko laalu dugalu fa bagaasam donc damay jàpp loolu damay lool laay jàpp ne ah comme kii moo yor ndar faynam xam muñ ko fa dugalee lu may saf ak nan la mel moom nee na kii ñam na ko mooy Mamour Diallo mais nee na Ousmane Sonko ñamu ko donc damay jàpp ne Ousmane Sonko ñamu ko loolu rek laa mën a jàpp ndax aje yor ndar faynam moo xam la fay dugg moo xam lafay fay saf moom xam na ñan ñoo nekk ci kawam ah ba muy wax seize ya ñi seesu ci kawam siisu ci kawam siisu ñi seesu ci kawam sées ña toog ci kawam sées dañ ciy toog ña seesu ci kawam siisu ci kawam moom boole wu ca Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa wax ci audio ba ne Ousmane Sonko dafa ñëw ñu maase ko 4 mai moom ak keneen mu dem ñu ne ko ñam na mu ne déedéet ma kon Ousmane loolu laay jàpp ni ñamoo Adji Sarr ndax Adji Sarr moo ko wax waaye man waata lu ma la woon ni yow ñamoo de déedéet du ma la waataluk loolu yow la ak sa borom yaa koy waat waaye bénéfice de doute amatu fa gañe nga parce que aji saar moo ne ko aji saar moo ne ci kawam aji saar nee na siicu ci kawam nee na ci kawam nee na ci kanam kawam boof yëg ci kawam boof ko donc loolu laay jàpp ko may duma te duma duma euh, euh, duma waatal kenn te te ci G16 bi tamit tudduñu ko fa kon il faut que sa soit clair sam papa sax du ma ko waatal waxuma laa euh, waxuma laa Ousmane Sonko wala aji Sarr sam papa sax du ko waatal déggu leen dana sam papa sax du ma ko waatal du ma benn góor yàlla benn góor laa dul ba xam dugg na wala duggul ñam na wala ñamut waaye bu dee jigéen bi moo ne ñamu ko ñam moom mun naa taxaw ne ah ñamu ko déggu leen ma de dama ne sam papa sax du ma ko waatal Oh, balaa certificat médical bi sax dama ne médical bi dafa ñëw rek dëggal waxuma certificat médical dama ne yow joor si la nga baal ma yaa yor sab ndar paayin Mollah Morgun boofu na ci yow wala boofuwul soxlawul ñuy dem certificat médical yow sa bopp yaa ne Mollah Morgun boofuwul sama kaw kon yow joor man boofuma sa kaw ndax yow yaa wax ne boofuma sa kaw kon certificat médical dafa ñëw rek dëggal mais du ca dara parce que yow yaa yor sab ndarpaan moom sab ndarpaan xam ba fay dugg ak ba fay génn ak kañ la fa dugg kañ la génn kon yow yaa taxaw ne ñamuma la jeex na donc certificat médical bi dafa rek leeral dafa sax leeral donc aji wax na ko certificat médical ba dëggal ko kon nag c'est clair donc loolu la ñuy jàpp ne Ousmane ñamul Ousmane boofut Ousmane siiciwul Ousmane yuuxu fa ndax kañi ñam nee na kenn ñamu ko docteur ba tamit ñëw ne kii kenn ñamu ko kon waaja wax frankulaay na loolu mooy wax ja frankulaay na donc kaw waxal aji Ousmane Sonko leneen da nga koy bëgg tooñ kay waxal Ousmane Sonko da nga kaa bëgg tooñ rek wala nga bëgg koo sosal waaye nag man moom kuy xaar may ñëw ci Ousmane Sonko naan dama koy waxal <laughs> jàpp leen ni Mollah mii ah ko eh, fay nañ ko lu muy waxal déggu leen ma de nee na boo leen déggee tam ba jimmi jamono dégg ma nekk ci wax Ousmane Sonko di ko songu Euh, encaissé naa de dagg leen côté vaar ma te xam ne encaissé naa lu bare bare bare lu war a tax may ñëw di di sosal koo xam ni te doonu ma doxalee noonu nokku moo nit boo xam ni bu ma la dénku sama alal du ma wax ci yow bu ma la sama alal lijjantiwu ma la ma la dénku sama alal xanaa mu am lu ñu naan domage collatéraux waaye du ma la lijjanti kon bés moo toogee fi naan Ousmane Ousmane Sonko comme ni ko ñeneen ñi di def jàpp leen ni moo laa miir eh, jot na lu bari de jot naa ay milliards Ousmane Sonko yow ne xoolal yow Ousmane Sonko yow noppil yow man man ma doxee noonu képp ku laal suñu alal képp ku takk ci nguur képp ku ñu dénk kees dinaa la saytu dinaa la càmbar dinaa wax ci yow képp ku ñu dénkul képp ku ñu joxul suñu alal képp ku lijjantiwul suñu duma la lijjanti boo gisee sa tur rek dommage collatéraux la dommage collatéraux mooy maanaam ka sàcc suñu alal daf la cee jox ñam la lam la ñam sama yoon nekku ca lam la jox laay lijjanti déggu leen de que suñu alal sàcc suñu alal du ma lijjanti te ma jox la sama alal yow laa topp bu ma la toppee nga dugg ci néeg ma topp la nga tëju fa ak jigéen ma topp la jigéen bi sama yoon nekku ca na ñuul na xees na ñool na rafet na ñaaw na gàtt I don't care ba ma duggee ci biir lijjanti ni kii sama alal daf la cee jox dama lay mënate ci benn loxo bi mënate ko ci beneen loxo bi yóbbuleen leen ne la lan la la jox nga ne daf may ñam ci ndar paayen oto ma ci jëndal ñam na ma ci ndar paayen appartement la ma luweel ñam na ma ci ndar bayen moom moo ma jox passeport diplomatique bi ñam na ma ci ndar bayen moom moom ma mais ni ngeen ñamantee li jëndiwuma ko est-ce que daf doon mar est-ce que dafa da doon mballu est-ce que di ngeen di ngeen est que dafa tëngoom sal tàg yooyu sama yon na ko ca déggu leen ma de xool la il ngeen xam nan lay analyser man loolu sama yoon na ko ca da koo juutal da koo aj tànkam kama sutra da koo nangam da koo wekk da sama yoon nekku ca kooku yéen la dama laa jàpp parce que oto bii mu la jox sama alal la dama laa jàpp parce que xaalis bi mu la jox sama alal la waaw laa la toppee rësal association de malfaiteurs rësal vol aggravé ba mu sàccee sama alal yow la ci tëddee sama yoon newu ci lum la tëddee mais lam la jox moo tax say tànk say say euh, say sa sa tur di feeñ loolu mooy dommages collatéraux donc pour parents yi ak ñi may déglu mag yi nga xam dañ may déglu xam ni tur yi ñuy dégg c'est parce que sàcc ba may topp sama alal gëmu sàcc boo ko joxee nit man bu ma ko jàppee damay jàpp nit ba ma ko jox mais la muy laalanteeg moom ak position ba sama yoon nekku ca ku mu joxul duma la laal waaye bu sàccee sama alal ku mu ko jox dinaa la jàpp te bu ma la jàppee bu ma ko jàppee duma la ca bàyyi sa tur da ciy feeñ donc man noonu laay doxee waaye képp ku ma joxul sama alal sincèrement bu ma la waxee rek dama laa tooñ duma def loolu donc Ousmane ci loolu la bénéficié wu du ma wax ci moom parce que dénkuma ko sama alal joxuma ko sama alal donc du ma wax ci moom du ma wax ci moom mais bés ba ma ko joxee sama alal wala ma dénk ko ko dinaa wax ci moom dina wax ci moom te kenn mënu ma ko tere kon na leer noonu laay doxee man mooy samay démarche donc man day naqaree utiliser ma pour xeexee keneen parce que dama yor ay démarches yu may doxee il faut que waaw man may seen comptable national un franc damay lijjanti fu mu dugg ak waa ji un franc yu mu sàcc kan la ko bokkal kan la ko séddool pour mu clair voilà recel dama ci topp sàcc bu mu sàccee ku mu ko jox ki mu ko jaay ñëpp dañ leen di jàpp noonu laa jàppee tamit ñooñu di leen indi man dama nekk dañ ma dénk pour ma topp sàcc yi kon sàcc yi fépp fu ñu jaar dinaa leen jàpp ak ñi ñu jox wala ñu ñu jaay wala ñu ñu may wala ñu ñu tëddee jox leen man jóguma di lijjanti caga am ngeen beneen dofu liveur bu koo xam ni moom dafa yeewu di lijjanti caga ñu bëgg dégg caga-caga dem leen wëri liveur yooyu am na liveur yu toog amuñu bopp jànguñu munuñ bind seen tur feebar futteeku taatu neen génne seen koy yi di wane genre xeet googu ñi nga xam ne ni leen nampal ci meewu fas wala meewu gileem wala meewu bëy mun nañ dem foofu suivre parce que kooku boo xoolee xam ni kii weenu euh, meewu janaxu bajo lañ ko jox moo tax comportement janaxu bajo loo kooku ci kooku ci mbirum janaxu bajo rek lay lijjanti moom ñooñu ñu bëgg dem gis ci ca caga ja ñooñu nañ dem foofu ca caga ja seetaan kooku nga xam ne ñooñu moom caga rek laa leen di wax caga janaxu bajo ji parce que meew janaxu bajo la nàmp janaxu bajo rek waxu janaxu bajo rek la yow janaxu bajo bajo bajo donc dem leen foofu man loolu intéressé wu ma ñëw lijjantiwu ma caga ji Faat Njaay caga buy cagatu fële te sa kenn sàccu sama alal jox la ko sama yoon naw ci yow Faat Njaay cagatul nu mu la neexee Fenja Endo cagatu nu mu la neexee je m'en fous yaa moom sa ndar pain yóbbu ko fa la neex jox ko ku la neex waaye bés boo ko joxee sama ministre bi may topp ci lim sàcc sa tur dina feeñ waaye boo dugg ci baar wi du joxe sa bopp ak nan sàngara yow Fenja Endo sama yoon nekku ca joxe sa ndar pain ku la neex naan fa sa sàngara ba màndi dóorante leen ni gulaal ci hôtel yeeg fu leen neex man ci tali bi mun naa leen romb noonu xoolal nekk yow nekk leen ci tali bi yéen ñaar yéen mandikat yi Fandiaye Endo ak Aminata Bachchan ngeen di gulaal yi ba ci mbedd mi ma romb leen doo leen mu sa dégg seen tur ci sa ci live bi mukk doo leen ko dégg de parce que intéressé wu leen ma mais bés bu ma la fekkee kooku am na keneen ku koy lijjanti doki dossier yooyu des fois dama ci am am na ku may indi waa euh, kii nii day day tëddee kii day tëddee ma ne kii kii kan la mu ne kii mooy Demba Ndiaye ma ne Demba Ndiaye mooy kan non Demba Ndiaye day nekk ci koñ bi di dee xale yi rek yan minute minute yi minute yi ma ne mais man Demba Ndiaye xaw ma ko man Demba Ndiaye topp ma Demba Ndiaye de ah non non non yóbbu dossier boobu yóbbu ko am na koo xam ne moom ci càgga ji rek lay lijjanti keneen di lijjanti càgga ji moom boo ko joxee Demba Ndiaye mun na génne Demba Ndiaye ak Fatou ak Fatou ak Fatou euh, euh, Fatou Ñokkotong ñooy moom kooku loolu lay lijjanti kooku am na dossier moom Demba Ndiaye ak Fatou Ñokkotong yi ñamante moom da koy lijjanti yooyu dossier kële la man dañ may jox yu mel noonu mais du génn bëri na ci bëri la naa ay photo nii ay xale yi kii indil ma benn tur boo xam ne xaw ma ko ne ma euh, kii mooy ñam kii <coughs> mais euh, lu sama yoon mu am droit ñoom ñu am buñ buñ nangoo kay nañ ñamante sama yoon nekku ci sama yoon xoola am na photo kii kii këñ ma wax xale bi génnewuma ko xale bi nii génnewuma ko xam nga ma woon woon xale bi génnewuma ko mais parce que këñ ma wax ne moo koy ñam xamuma ko te boo ma laajee waa ji ma ko jox dama ne ko kii lan la laal ci suñu xaalis def ne non non benn grand la boo xam ne ma ne ko non mais grand bi nag du ma ko tooñ nag grand bi am na gémmiñ ko forox toll di mën a fen ba fen xale bi ba yóbbu xale bi ba xale bi jox ko ndar paanam mu tëddee ko lu ma ci kii def ma dara di ñoom ñaar la ak yàlla de sama yoon newu ci léegi nag dossier bi am na koo xam ne moom moom yooyu lay lijjanti moom moom daa namp ci euh, weenu euh, wax naa leen ko jana ko bajo jox ko ko bul jaawalee bul jaawalee librairie yi ak livre yi ñu yor ak ak librairie yi ak tamit capacité intellectuelle bu ñuy doxee donc yii doo ko traité ñaari caga yi dajaloo waxtaan ba juboo ak gémmiñ gu forox toll kii fen ko kee won ko ndar paan bu forox toll ñooñu bu ñuy ànd rek seeni forox ñu jël daqaar ah def ci euh, Dakar moom def ci xorom day yomb madd def ci xorom day day gaaw wala Dakar def ci paañ mun na ànd Dakar boo ci sottee paañ day neex a lekk donc ab caga bu góor bu gis caga bu jigéen ñu négocier seen négociation ba dem fële defar seen Dakar ak seen ñambaan bu saf sàpp ah, tëmbal ci euh, seen i seen i bagage ah wala seen soble bu ñu dagg loolu sama yoon nekku ci bu ñu jëlee seen paañ yi góor bi indi Dakar jigéen bi indi paañ ñu jaxase ko jël seen soble daggate ko yëngal ko ba mu saf ñu macc ko ñoom ñaar di dàqamti ko sama yoon newu ca vraiment ku góor ki tooñu ma ab daqaaram bu mu lijjantil boppam la kële paañ bu mu lijjantil boppam la ñu dajale defar seen daqaar ba mu saf yóbbu ko ñam ko sama yoon newu ca lijjantiwu ma ko lijjantiwu ma ko sama dakaar lay lijjanti sama daqaaru réew bi sàcc di ko ñambaan laay lijjanti donc dossier bi intérêt moo tax kii bu ma joxee ndaw si ba ma waxee turu kooku nekk du koy ñoom ñaar dañuy ñambaanante te ma ne ko sama yoon nekku ci sàccu ma yoru sama alal dàqewu ma ko topp ma ko donc il faut que ça dafa am nu may de te kenn mënu ma kel kenn mënu ma dévier kenn mënu ma def loo lu ma bëggut kenn du ma wàcc si sama concept bi may doxee voilà bu dee yow sàccoo sama alal jënd sab daqaar ci sab alal moom mu jënd paañam ci sa ci alalam ngeen defar ci seen ñambaan dagg ci seeni soble defaale ca n'est-ce def ci seeni jimboo yëngal ah boo koy màcc nag seeni tàqamtiku du ma sonal dëgg-dëgg seen ñambaan yow nga indi góor gi nga indi sab daqaar jigéen ji indi paañam ngeen wut seen seeni xorom def ca wut seeni jimboo def ca yëngal boo mu saf ngeen di màcc boo leen tàqamti ko moroom bu leen dem de tàqamti ko leen ba suba joxuma leen ñambaan ja joxuma leen daqaar ja joxuma leen paañ ba joxuma leen xorom si ngeen ci def joxuma leen jimboo ji ngeen ci def yéen ko moom defee leen ko num leen doyee defee leen ko nu leen safee yéen a moom du ma laal waaye sama daqaaru maam ko ko sàcc ma lijjanti la sama daqaaru maam du ma seraan kenn di ko ñambaan dama ne sama daqaaru maam sama benqalu peuple sama ñambaanu peuple du ma nangu kenn di ko ñambaan di ko naan di ko macc bay dàqamtiku ma mbéj la nga wàcc c'est tout dama ne sama daqaaru peuple kenn du ko ñambaan may dund sama euh, nu mu sama ñambaanu peuple duma ma kenn du ko lekk ma